ko ñu ko mën def kon nak li Mamadou Diop wax dañ la ko ñaan xamna ni dis na sax ndaxte magaam na waye Mamadou dina ko wax ni mom ci wal bopam de temps en temps mom ak cherif Ben Oumar li ñu jaar fi mom diko bind ci arab sherif diko bind ci français né dana dem ba nga xamanteni mémoire lay doon dana dem ba nga xamante ni danañ ko def téere mool ko def ko ci français def ko ci arab ne loolu rek mooy suñu dox lii ñuy dox nii nag waxoon na la ko fii yaa ngi toog sa piliyaan ñun ñoo ngi toog mu ni la lii ñuy dox ni su fekkente ni du ngir yëkkati kër gi ngir yëkkati Cheikh mar ak yéen ñii yal na ko yàlla yemale foofu ngeen def ñaan mu dem ci rawdo ba mu wax tax wax ko daa mu daal di wax ne su ma ci gisee sam bopp yal na ko yàlla yemale foofu lépp rek ngir yëkkati kër Cheikh Oumar ne coono biñ ciy sonn yëpp mun ñu leen dab yéen ci seen barke waaye tamit du tee ñu ñàkk ci tuuti ndaxte barke bi ngeen ci amoon ndax ñun tamit mu mën a sotteeku ci njaboot ji ne loolu de mooy lii ne yow nag Thierno Baba mention spéciale de mention spéciale lii ngay dox ci kër gi njub jubal nekk nitu dëgg ñëpp dañ laa xamee dëgg lu tax ñëpp naw la muy dëkk bi yëpp nag ndax mooy sa dëggu ne surtout Cheikh Oumar nag noonu lay mel nag day bëgg dëgg te nag yow it Cheikh Umar piir nga ndaxte deret Cheikh Umar nga kon nag dañ lay ñaanal yàlla yàlla mi dara tawul